di di remercier ñu fi ñëw à travers ñu nek ño xamné ño ñoo ñëw teewal tey conseil d'administration bi muy doyen Maguette ak euh, monsieur Alioune Sow ñu ñëw vraiment au nom du conseil d'administration teewee xew-xew bi bo xamné c'est une première ci centre bi ñu def ben journée avec les jeunes pour wane vraiment lepp lo xamné ci xayma ci walu euh, tagat ci wal euh, travaux yo xamné ne xale koy def ci wal métier yo xamné lu jëm ci tabax lu jëm ci électricité lu jëm ci travaux publics lu jëm ci éco-construction lu jëm vraiment lu jëm ci plomberie woné xalé li fi jàng lépp objectif bi moy woné grand public li lan lañuy def ci centre bi mais également permettre des jeunes qui souhaiteraient faire la formation ñu xam lan lañ fi nek mais également entreprise yi ñu mëna xol

ñu mën ko améliorer pour ñëpp vraiment mun cee gis seen bopp. pratiquement fi ñooñu yëpp am nañ déjà des accords de partenariat yoo xam ne chaque année dañuy jëlal ay mais lu si gën a neex tamit am na ñoo xam ne fii lañ doon jàngee ba jëlee nañu ba yàlla def nañu sumb nañu ba créer seen entreprise jël nañ seen engagement nañu jël vraiment jeunes yi ci wàllu leen stage mais également pour jàppale leen pour ñu am liggéey ci.